ne dina gindi sénégalais yi ba ñu xam ne loolee jaru ko. mais yow mii di wax ak man <clears throat> xam nga ne Juan Branco moomu amul sax une bonne réputation man je pense que waa kër Ousmane Sonko ñoom fekkee ne ay nit yu mat leen wax dëgg yàlla avocat yi nga xam ne yàgg nañ leen layal ñu ngi fii Sénégal ñuy avocat yu jàng bokk ci barreau yu gën a mag wax dëgg yàlla doyal na mais yenn yi yow soo ne yow gëmoo France dangay wax France dégage nga ne France baaxul ba pare yow nga jël sa avenir yëpp teg ko ci benn avocat bu nga xam ne wax dëgg yàlla den koy jiñ sax mbirum viol loolu ñëpp xam nañ ko du secret donc loolu c'est insulter même la mémoire des Sénégalais deuxièmement également Sénégal ñëpp xam nañ ne wax dëgg yàlla réew bu nga xam ne la suñu justice lépp lu nga xam ne am na fi mun neen koo teg ci table bi suñu justice réew mën ko juger mm-hmm. waaye CPI CPI ay crime de guerre crime contre l'humanité mm-hmm. genre yooyu la fa ay nit ils sont dans l'exagération mais loolu non yooyu je pense que c'est du populisme ñoom dañu wax rek pour wax mm-hmm. pour manipuler la conscience des Sénégalais yu nga xam ne wax dëgg yàlla mun neen leen manipuler waaye ñëpp xam nañ ne seen wax yooyu vraiment waxu na xaw